Euh, mooy euh, doog a jot ñu jóge ci sport jàll ci économie ak mun euh, Maimouna Gueye Bambalou xam nga fan yëpp yéen a ngi dégg nii Euh, ministères yi jëwriñ yi ñu ngi dem assemblée euh, pour ñuy amal loolee ñu tuddee votre budget et à chaque fois da di dégg ay somme yu ngand yu pata sans pour que euh, ñëpp comprendre alors loole mu ngi tudd établissement du budget may mun a loolu nga ñuy expliquer léegi nii ci partie bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu koom tout à fait Pape Cheikh mais balaa ñu siy waxtaan comme on a l'habitude de le faire mm. dem nañ seeti koo xamante ni il est spécialiste en finance publique nekk mm-hmm. ONG 3 indil ñu si ay leeral wax ñu nan la ñuy constituer budget et éventuellement si nekk yëpp lan moo ko tax a jóg. nguur gi dafay euh, jéem a xayma lan la am ci ay ressources maanaam lan la fan la mën jëlee ay xaalis ak ci yan priorité lañ koy dugal ñu naan donc budget buñ ko waree expliquer mooy euh, xayma yi nga xam ne nguur gi moom ngay xayma ci at yi ñu ci lu jëm ci wàllu ressource Euh, financière moom fu ñuy mën a jëlee xaalis ak fan la koy dugal. xaalis la boo xam ne dañuy yaakaar ni ci biir at mi dinañ ko am ak aussi yaakaar nañ ni bu ñu jotee xaalis bi priorité yi priorité yi ak priorité yi dañuy jël en charge bu ñu pare euh, dañuy dem euh, assemblée nationale déposer ko fa. après loolu am na yeneen am na yeneen étape yoo xam ne dina ci jaar mais xam naa duñ ci mën a xuus. Euh, donc dina am ay conférence budgétaire entre ministères yi dina am débat d'orientation budgétaire entre euh, état bi ak euh, assemblée nationale donc pour député yi ñu xam nga nguur gi ndax ministre yi dañuy ñëw assemblée nationale su nekk nga défendre sa budget budget député yi posé la si ay questions bu ñu ba au plus tard le 31 décembre assemblée nationale mooy voté budget bi à travers la loi de finances prévoir parfois mën nañ am lu ko lu ko gën a tuuti wala ñu am lu ko moo tax euh, loi bi permettre euh, nguur di bu demee bi ci digg année bi bu gisee ni situation bi changé na mu dem assemblée nationale déposer li ñuy wax loi des finances rectificative budget citoyen yi bëri xamuñu ko donc même bu fekkee droit bi existé na donc euh, budget citoyen yi gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy élaborer à chaque fois di ko publier si si du ministère dafay jaar ci citoyen budget bi déjà boo xoolee lu si ëpp recette fiscale la bu ñu nee recette fiscale yi nga xam ne ñi dëkk ci réew mi ñoo koy fay donc société yi muy man ak yow TVA yi ñu fay euh, yi ñu lay dagg et cetera donc loolu puisque lu ci si recette fiscale yi day jógee day jàpp yow en tant citoyen nga def boobu effort dem jëli information bi aussi boo amee occasion taseeg sa député wala nga am occasion taseeg benn ministre euh, nga posé ko am na lu la jaaxal wala am nga ay recommandations sur ñuy exécuter budget bi. voilà Seydina Mohamed Mbaye lañ doon déglu moom nag euh, expert finance publique la mu expliquer établissement au budget et euh, c'est toujours bien askan wi xam quand ndax suñu xaalis la. xam éventuellement Pape comme ni nga ko waxee moom mi ngi nekk fële di ONG 3D ñëw na si ay euh, leeral parce que xam nga chaque fois dañuy gis ni que budget état sénégalais bi dafay yokk donc nit ñi di posé wu la question de savoir lan moo tax à chaque fois budget bi du yokk du wàññeeku mhm. mais moom li mu ñu expliqué mooy budget on le fait en fonction de li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni moom la ñuy jot et non en fonction de dépense yi nga xamante ni moom moom moom la ñuy def mhm. donc su fekkee ni que euh, état bi xam na ni 2019 en fonction évaluation de li nga xamante ni moom la ñu liggéey en lii la ñuy a recevoir loolu moom par rapport ak li nga xamante moom lay recevoir si lay établir dépenses yi nga xamante moom la war def pour bi par exemple en dañu voté woon budget boo xamante ni 3709 milliards la finalement on a exécuté 3774 milliards donc suñu demee budget bi que ça mu yokk wala mu wàññeeku. Mhm. dañuy def li nga xamante ni moom mooy loi de finances rectificative loolu moo lay permettre su fekkee dañu dem ba ci digg année bi. budget bi mm. li nga xamante ni dañ ko yokk dañ ko prévoir woon ñu am moins. wala ñu am plus loolu moo lay permettre ñu exécuter parce que budget bi suñ ko voté mënuñu ko yokk tant que assemblée nationale validé waatuñu li nga xamante ni moom mooy loi de finances rectificative yooyu donc lan moo tax nag budget bi à chaque fois muy yokk parce que Sénégal dañu ñëw di def li nga xamante ni moom mooy élargissement assiette fixe fiscale cest léegi c'est très difficile nit kuy liggéey du fay impôt donc budget bi nga xamante ni moom mooy 2019 ñu ngi ko estimé pour l'instant à milliards donc te si milliards yi un peu plus de la moitié ñu ngi koy jëlee si li nga xamante ni mooy recette fiscale recette fiscale nag mooy impôt yi nga xamante ni ñun ñii moom la ñuy fay si suñuy salaire mu ngi nekk si déclaration de TVA yi mu ngi nekk si conteneur yi nga xamante ni économique yi dañ koy indi di ci fay ay impôt donc tout ce qui est impôt moom mooy vraiment partie bi gën a importante ci budget bi donc comme nag dañuy dem ci dëkk boo xamante ni de plus en plus dañuy bëgg élargissement assiette fiscale c'est-à-dire imposition yi ñu def ko de façon nit ñi chaque fois du am dara luy euh, loo xamante ni dañ koy jéggaane aussi képp koo xamante ni nekk nga opérateur économique ñu def de sorte que li ngay liggéey nga war ci mën a fay impôt donc nag suñu nee 2018 def nañ lii ñu amaat ñoom yeneen plan wala yeneen méthode de recouvrement yoo xamante ni da leen permettre ñu def plus parce que da ngay gis ñu naan la douane bi def na 500 milliards déwén dafa war a def dafa bëgg a def 600 milliards donc en prévision de ñoom li nga xamante ni moom la ñuy euh, bëgg a recevoir si mhm. la ñuy établir looloo tax na à chaque fois budget bi du yokk et comme je l'ai expliqué tantôt c'est par rapport ak li nga xamante ni moom la ñuy espérer jot que si la ñuy établir dépense yi nga xamante ni moom la ñuy def. léegi bu budget bi sa budget jeexee léegi yow par exemple wala sa at bi jeex waaw te euh, at bi jeex te sa budget des comment tu waaw parce que xam nga bu ñu nee euh, budget prévision la c'est-à-dire xam nga chaque fois dañuy def li nga xamante ni moom mooy euh, ay prévisions de dépenses et de ressources ba pare dafay am ay conférences yoo xam ne dañ koy def ci ministères yi ak ay assemblée budgétaire conférence ak ay débats yoo xamante ni ministère bu nekk en interne day am expertu état bi yuy ñëw toog ak ministre bi ak moom ay expert moom mu établir budget am daal lii ak lii ak lii laay soxla ñoom ñu xool aussi par rapport à ak faisabilité bi te il faut savoir que budget bi chaque fois bu ko ministère bu nekk boo koy def c'est en prévision de politique u président de la république parce que président de la république selon moom ay euh, secteur prioritaire am si la ñuy jël projet yu mag yi nga xamante ni moom la budget bi di jël en compte donc politique euh, Euh, politique gestion nation président de la république moom mooy orienté li nga xamante ni mooy budget mhm. donc suñu defee conférence budgétaire yooyu au sein des ministères chaque ministère en interne ay experts yu jóge ministère de l' intérieur ak ministère du finance dañuy dem si ministère si si ministère boobu moom mu présenté budget ba état bi validé kooku selon orientation politique nationale bi après nag si la ñuy doog a ñëw assemblée nationale maintenant soo defee nag ay prévisions budgétaires maanaam nga ni lii wëkk lii wëkk lii laa bëgg a def après ñu dem ba fin d'année on s'est rendu compte que yow li nga wax yëpp peut-être sa budget bi liñ la jox dafa bëri déwén impérativement dañ koy wàññi bu baax parce que dañuy estimer que di nga euh, annoncer chiffre boo xam ni réellement tu n'en avais pas besoin alors que chaque fois da ngay gis votu budget bi dafay metti parce que secteur yu nekk dañuy xëccoo donc dañuy dañuy du bëgg jox nit xaalis ñu dem ba à la fin de fekk am na yeneen secteur ko soxla woon te dugaluñ foofu xaalis bi donc ñoom tam dañuy def tout pour budget yi nga xamante ni moom la ñu leen votal ñu exécuter ko de ce fait chaque année dinañ am peut-être euh, ay augmentation par rapport ak seen budget nga dugal budget ñu rejeté ko. Mm-hmm. nga ne li laa soxla ñu delloo la euh, mun nga dugal ñu ñu redimensionné ko comme ni ma la wax parce que tey soo fekkee da nga nekk je donne un exemple ministère du transport nga ne lii ak lii ak lii laa bëgg def fekkante ni le président de la république moom il s'est nañ dem plus infrastructure yow soo génnee li nga xamante ni moom nga soxla projet yi nga xamante ni mooy orientation politique nationale yi ñooy prioritaire maintenant tu peux proposer un budget de je sais pas cas 400 milliards et qu'on te donne finalement 300 milliards parce que comme ni ma la wax su ngeen duñ defee euh, ay réunion ci euh, ministères yi moom la ñu tuddee ay débat budgétaire ak ay conférence budgétaire foofu de façon interne la ñuy définir li nga xamante ni euh, yow moom nga bëgg a def c'est-à-dire ministre bi bu proposé ay représentant président de la république ministère des finances ak ministère euh, de l'intérieur dañuy yónnee ay experts pour ñu càmbat xool budget bi en interne ba pare avant muy dem assemblée bu demee assemblée c'est juste que pour euh, député yi nga xamante ni ñoom ñoo représenté peuple bi ñu mën a li nga xamante ni accordé ko wala vote ko wala euh, crédit enfin joxe daal li nga xamante ni askan bi d'accord na ni que budget bi pour après ñoom ñu mun a exécuter mais fekk na en interne ñoom ak experts yi nga xamante ñoo nekk ci état bi xool nañ ko ba sayt ko juste terminer par cher sur le fait que chaque année bu ñu voté budget bi ba pare avant ñu koy exécuter dina am li nga xamante ni mooy budget citoyen mu ngi koy wax dañ koy mettre en place def ko benn résumé budget bi yëpp ak politique étatique bi ci année bi yëpp dañ koy mettre à disposition nit yi mën ko xam ci site fi nga xamante ne mooy ministère des finance donc baax na sénégalais yi bu ñu leen mettre à disposition document yooyu ñuy dem di ko lire pour xool orientation politique état bi loolu mooy permettre aussi su fekkee yow da nga yor sa entreprise nga am ay services yooyu proposé état bi di nga xam ne que tant de milliards sont disponibles ci fii ci fii ci fii te tax xamante ni say demande wala nga mën a def li nga xamante ni mooy soumission appel d'offre yi Pape Cheikh. très intéressant muy jëm ci wàllu votre budget établissement budget may mu a ki nga expliquer ñu ko ba mu leer c'est toujours intéressant ñu ngi lay gërëm bu baax merci